monsieur Ousmane Sonko euh, sant suñu sëriñ le xalif général de murit sëriñ Mountaga Mbacké yàlla na fi yàlla na wér te yàgg fi sant tamit porte parole sëriñ Bass Abdou Khadre sant borom Touba bu baax a baax su ngeen gisee nu ñu duggee fii dinañ xam ni teewaay bi ak akkay bi ndigal la te xam naa ne fii Touba nit ñi si si ndigal lañuy la ñuy wéy te ti sant comi comité boo xam ni moom moo taxaw pour ñu def fi dispositif sanitaire boo xam ni moom la ñu war a waajal waajal pour wàccaay màggal Touba parce que xam na ni mbooloom bu takku euh, dina fi ñëw liggéey nañ si nag liggéey bu bu mucc ayib présenté na ma euh, dispositif bi te gis naa ni lu ñu war a jël yëpp ci matukaay jël nañ ko ba mu ba mu mat sëkk lu ñu ñaan yàlla rek mooy màggal bi ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm ñu lu ñu war a jëfandikoo yëpp ñu jëfandikoo ci jàmm yàlla may ñu màggal boo xam ni tawféex lay nekk ci ñun ñëpp di sant tamit autorité administrative yu fi teew gouverneur gis nañ taxawaayam depuis bu ñu commencé di waajal màggal bi guddi ak bëccëg moo mag équipe am yëpp préfet sous préfet sant tamit délégation ministère de la santé ñu fi ñu fi teewu ñoom tamit depuis bu ñu commencé di wax waajal màggal bi taxaw nañ ci bu baax a baax te lu ñu won tey ci dispositif bi wane na lu ñu waroon def yëpp euh, euh, def nañ ko di sant directeur hôpitaux yu fi nekk gis naa ni seen taxawaay bu baax a baax médecin district yu fi nekk bu nekk Mbacké bu nekk bambe bu nekk jurbel ñoom ñëpp ñu ngi ci taxaw bu bu baax a baax service d'hygiène won nañ ma lu mu nekk di def te xam naa ni liggéey bu baax a baax lañuy ñuy sumb fii nii si Touba pour waajal euh, màggal gi mais di gën tamit sant président euh, premier ministre ak guvernement bi parce que année bi dañu waxoon ni comme xawoon nañu am tuuti jafe-jafe si côté inondation te dañuy ragal ni xëy na jafe-jafe si wàllum wàllum euh, jàngoro yi wàllu wér yaram mun na mun na am dañoo yokk ambulance bu ñu doon joxe année bi parce am nañ caisse d'avance bu ñu doon joxee wante année bi dañoo jël huit cent millions ne nañ ko jox opito ñetti hôpitaux Touba pour mun leen gën euh, jàppale pour ñu mën a gën a mën a fagaru si màggal Touba bi nga xam ni duñu si am vraiment benn benn benn gàllankoor te xam yaakaar naa ni euh, koppar buñ buñ bu ñu jëbalal hôpitaux yi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax ba mu nekk njëriñ askan bi nek tamit njëriñ dañu ñu ñew magal Touba mais mu nek tamit njëriñ su magal Touba jallé ba paré parce que hôpitaux yoy tamit dañu war continuer di di fonctionner di joxé service euh, service bo xamni mom la population bi di xaar damay sante conseil municipal bu Touba sante aussi Touba ci kanam ak mboolem ñu fi nek ci ay association ñoo xam ne ñu ngi jàpp si dëkk bi jafe-jafe bu fi am ñu ngi siy jàpp di ko saafara te xam naa ni euh, su fekkee ni amuñ woon benn taxawaay du mu wax système de santé bi du dem mais dina am loo xam ni dina dina lëj tuuti wante vraiment man xam naa si biir Touba ñoom ñu ngi ñëw di mu wax si ministère ba fale lu ñu nekk di def fii nii si wér si mbirum wér gu yaram xam naa dañ ko yéenee Touba yéene ko wa Touba yéene ko wa Sénégal yëpp te ma ngi len di gën ñaax ñu gën ci taxaw parce que santé lu mu laaj pour ñu ah, pour suñ objectif ñu mën ko jot financement bu bëré bëré la laaj état bi kessé du ko mëna def il faut que population yi bonne volonté yi ñu mën si dugal seen loxo partenaire au développement yi dina ci duggal seen loxo parce que tey Sénégal soo jëlee du santé rek moo am boo xam ni soxla nañ si financement mbay baa ngi fi éducation baa ngi fi jàngub alxuraan baa ngi fi euh, pêche baa ngi fi donc secteur boo jot soxla nañ xaalis donc dañuy xool ku nekk ñaata lañ la war a jox pour nga mun a dox mais santé soo xayma lu muy soxla pour dox duñ état bi kese mënu ko joxe te xam naa ni bonne volonté yi ñu ngi koy joxe damay profité fii si ce canam, di len di len di len remercier té di ñaan yalla ñu gëna yok seen loxo yalla may len wërgu yaram may len gudd fan may len kattan pour ñoy gën di taxaw suñ système de santé Sénégal mais ngeen def ci ñaan bu bu bu baax a baax am tamit euh, euh, ndimbal bo xamni ni na ci ministère de la santé xam naa ni dage bi moom après dina ko dina ko jox seen seen service yi mooy lu denrée alimentaire ak euh, yeneen produits boo xam ni pour pour affaire set xam ni peut-être dina leen mën a jàppale si si si màggal bi pour mooy mooy tënk xam naa ni jot bi moom amul te euh, dama waroon sax baalu pour temps bu ñu bu ñu la toogloo fii te xam naa ni da nga amoon yeneen soxla ak yeneen itte yi ngoon dox dama bëgg rek nga ñaan ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal gouvernement bi ñaanal ñu fas yéene ñëw si màggal tubaab yi ñu ñëw si jàmm ñu def màggal tubaab bi si jàmm ñu ñibbi si jàmm fekk seen famille yëpp jàmm fekk waa Sénégal yëpp si jàmm jëf wasalaam. ministre de la santé Ibrahima si ñu lay delloo am nuyu bu baax. ak mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ci gouverneur de la région de ak préfet bu Mbacké ak mboolem ñi ngi àndal ñëpp rawatina secrétaire général bi nga xam ne ak dañuy njëkk a tàmbali organisé Magal Touba gi 2008 2009 boobu moo fi nekkoon kon xam na liggéey bu baax bàyyiwuma kenn dégg nañ kàddu yu baax a baax rafetlu nañ ko bu baax ndax yëg nañ ne na ma ko waxe woon démb rek def ngeen ci yitte def ci taxawaay rawatina li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram moom moo war a jiitu lépp ndax li wolof yi di wax naan soxla bu dee ñaar boo wér dafa ne kon moom mooy jiitu lépp loo xam ne ku ko yàlla defal bari nga ko yëg day fekk nga ñàkk ko yàlla ñu ci musal màggal gi xam ngeen ne ay millions yi nit a fi daje kon nag bu yàlla defee li ma daa wax rek la sëñ daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne gestu ndax bi ngeen fi toogee yàggagut waaye yéene ji ak yitte ji gis nañ ko te njabootu Sëñ Tuubaa moom loolu rek la ñuy ànd ak di teraanga akuk yëkk ndax lu mu doon rek Sëñ Tuubaa defal leen ko ba noppi waaye nit nag bu nekkee ci li ko gën a ñor di léppam nga wane ci sa yitte ak sa taxawaay loolu dañ koy rafetlu bu baax kon ñu ngi lay yóbbanteem nuyu ci sa kilifa yi la yabal di lay eh, nuyu yow itam di leen sant di leen sant bu baax di leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax yàlla def na tey jii moo leen waroon a waaye yàlla def mu bokk ci bis yi nga xam du ko ubbi da koy def xelwatu mu jox ma ndigal moo amoon yéene lool jàkkaarloo yow ndax xam naa ñàkkut say. ndaw yu daa dox sa digg moom ba tax amoon na yéene lool gis la kon mu ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm sëñ Abdou Lahad Ka leeral na ma lépp ci taxawaay yi nga xam def ngeen ko ci dëkk bi muy taxawaayu kawe kon loolu moom dañ leen ci sant di leen ci gërëm di nuyu euh, docteur Dieng mi ngi àndal ak docteur Sourang ci taxawaayam ak yitteem ci jàmbaaram ci liggéey bi di nuyu directeur hôpital Matlaboul Fawzayni ak day màgg jëng di nuyu directeur hôpital Ndamatou bàyyiwuma kenn daal boo limee da ngay juum waaye li ci am solo daal mooy yitte ji nga xam ne waa commission bi yor wàllu santé ci euh, comité organisation bi at yëpp ñu ngi ko daa wax ndax daanaka mooy li jëm ci wàllu kër docteur yi mooy garab yeeg ndax xam ngeen nit ñi bu ci waxtu màggal bi ay téeméeri poste poste lañ ci def ngir nit ñi mën cee fajoo mottoo ñaar téeméeri million kon bu ngeen ko yóbbu ba huit cent millions loolu kon eh, yëkkati ngeen ko bu baax kon day mel ne bañu ba ñoom ñuy sàkku ñu yokk ko sax dañoo waxoon ne màggal gi dox na fukki at nangam sa daanaka li mu yokk bariwut te nit ñi ni ñu yokk ëpp na kon bu ngeen xaymaa la seen bopp ba jiituñu ci loolu ak cant ak gërëm képp lañ leen ci amal di leen bu baax yàlla dimbali leen ba noppi indi fi wér gu ci réew mi ndax li ngeen wax màggal gi dafa tombeek nawet te nawet ku ne xam ne day àndaale ci jàngoro yoo xam ne bu dara xewtoon tam day am bu ànd ak mbooloo mi dajaloo te am na ci loo xam ne li ci ëpp ci ndox mi ak weñ yi ci lay jaar wér de yu bare bari yooyu yëpp ci gàttandu gi la bokk kon nag ñu ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm te yàlla suñu borom bi nga xam ne mooy saafara ndax mooy teg mooy technique mooy technique jàngoor waaye moo koy safara yàlla na ñu dimbale ba màggat gi ñu génn ci jàmm te kenn bañ a wér di ndax màggal gi moom nañ ko waxee woon deux rek suñ suñ bakkan jëraluñu ñàkk jëfe ndigalu suñ kon nag yàlla nañ yàlla dimbale ba fekk ñu nekk ci jàmm ndax moom bu leneen bu bu ak wér amoon du ci yàq dara kon nag loolu moom dañuy ñaan yàlla dimbali ñu ba. màggal gi ñu àgg ca jàmm te dara bañ a xew lu dul jàmm bu jàllee itam dara bañ a amaat lu dul jàmm wala rawat na ci wàllu wér-gu-yaram kon ñu ngi leen di beesal ak cant ci tuuru sëriñ bi leen ñaan bu baax yàlla kàttandal leen ndax yaakaar ji yaatu na yaakaar ji nit ñi am ci yéen yaatu na te lépp yaakaar rek tax kon nag yàlla na suñ borom dimbale ba yaakaar ji ñu am ci yéen yàlla bañ koo tas ndax loolu mooy doon njëriñu nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu